asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñépp di leen ziyaar ah, di leen ndokkeel ci guddi gi di leen baalu àq ci toogaay bu yàgg bi ah yàlla nañu jëriñ yàlla xam na ne kàddu yi jaru ko ndax li fi jaar ci symphonie jaar fi ci xam-xam luñ ci tegati mu ëpp kon nag du ñu guddal ah sant yàlla sant yàlla bam ñu mayee xàmmeek xam gu ñu mëna a daje fii tey suñuy pas-pas di ànd wéy di sant yàlla bam ñu booleek ñoo xam ni ba ñuy defee la ñuy def ci ñun ba léegi rëccuwuñu carte carte yi ñu yàlla distribué kon nag sant yàlla yàlla xam na ni gàntaloon naa kàddu gi sax ndax ni ko Oustaz Babacar waxe sànq ku nekk ak ki nga am ku nekk ak ki nga am ñu nit ak ki ñu am ki ñu am it ak cofeel bi ñu am ci moom ak fi ñu toll moo tax yàlla xam na ni turam sax buñ ko déggee saalit moo tax ah waaye am na loo xam ni niñ koy faral di waxe ku sañta bañ saña a nangu rawatina mag yéen bañ ko séqee ah am na nag loo xam ni xëy na wax nañ ko fi ci ginnaaw te mooy cëru nitu yàlla kenn du ko discuter kenn du ko waxtaane ndax far dafa yomb far dafa yomb te kuy far doo xaar ba xam doo ko far moo tax am na loo xam ni kenn du ko discuter waaye am na loo xam ni ñoog yéen sañ nañ ci mos lay wax ndax xam nga nit bu ganee àdduna yàlla ci cofeelam dana jël benn ci turam pare ne ko ko tur boobu di ko gunge di ko gunge di ko gunge fekk moo ngi gis lu dëppoo ak li boroomam sob waaye ni muy amee ci juddu nit noonu lay amee ci cëru yàlla waaye cëru yàlla nga nekk nitu yàlla taxul nga nekk missionnaire nga nekk nitu yàlla nga nekk missionnaire moo tax am na ku ma ko mës laaj ne ma jamono bu ci ñaari nitu yàlla daje kan mooy am autorité ci kaw moroomam ma ne ko ki ci yàlla teg ki ci yàlla chargé mission naka ci des vacances la fay def wala renfort la fa te renfort ak lu ma ci xaw da ngay déglu kii la fi indi mu jeex waaye foofu li ci am solo mooy mission bu amee bu ko yonent bi di chargé ki mu am ki mu tànn da koy booleeg attaché de mission ndax yàlla dafa def mag ñi ñaanu yitte moo leen ëpp solo ñaanu sajaada kon nag du ñu soxla mukk ba ne yonent bi soxla naa dañuy jëfe rek seeni jom ba xéewalu yàlla fekk leen fa ak yërmandeem mu am nag benn unité spéciale bu yonent bi tànnal boppam waaye cofeelam ci ñoom ba mu leen yónnee ba pare xaw ko ëpp doole mu dem ci borom bi ne ko ah man de sama gaay dem nañ waaye dama leen xaw a ñeewante mu ne ko kon nag maa ngi lay ñaan ci sa mbaax nga am ci sa tur yi ñoo ma abal ñu gungeel ma leen moo tax ko mel Cheikh Al li tax ñu ne Al Malick ci thème bi démb du ay caaxaan ndax xam nga ñu bari dañuy jël turu yàlla ne 99 la d'accord waaye xam nga charia dafa am xaqiiqa am yooyu tur yi charia moom la xaqiiqa nag bul xam yu fa nekk. ak bul xam ban nombre la moo tax bu ñu nee almalik c'est pas pour rien yonent baa gis tuuru yàlla bi ñuy wax almalik ni ko gungeel ma malik ndax dama bëgg fa mu jëm ak li yàlla dajale ci moom lu mu sopp nga sottal ko ndax yàlla def na ci moom du sopp lu baaxul jamono di dox ñu ne alxalifa yonent bi dépêché ture yàlla bi ñuy wax alxalifa ndax ñaari bokkuñu gis nga buur ak njiit bokkuñu buur day sopp doxal njiit day tëral njiit dafay tëral ñaari nag bokkuñu moo tax nag alxalifa lu mu tëral yàlla garantir ko jamono di dox ñu ne almaktum yonent bi ne ah kii de ñaar am na te mooy lu Malik dajale woon daje na ci moom lu xalifa dajale woon moo nga ci moom kon nag sutura rekk a war ci wàllam moo tax lu mu dugg yàlla suturaal ko ci jamono di dox al murshid egsi al mursid egsi yonent bi xool xool xam ni lu Malik amoon téye na ko lu al xalifa amoon téye na ko lu al maktum amoon téye na ko kon nag lu fi desati lu fi desati waaye dafa saalit yonent bi dafa saalit ndax ba mu demee gis ni loolu yëpp dajale na ko te yéenewu lu dul jël loolu yëpp partagé ko mbindeefu yàlla yi moo tax dafa saalit dooleel ko ci beneen tur yaa sirri bi moo tax xol bu wér munu ko bañ a nangul xol bu wér munu ko bañ a nangul ndax li mu doon daf ko mat sëkk kon nag ñun nag lay suñuy taxawaay ñu mat ko ñaboot asalaamaaleykum wa